mu mel ni bokk ñu bokk yàlla al yawmu yawmul jumaa tey bisab juma la vingt et un ñaar fukki fan ak benn ci aw tamxarit ci tamxarit wii ñu nekk weeru tamxarit yi ci ñi nga xam ne loolu lañ jàpp waaye di euh, mu xaram ñaar fukki fan ci weeru tamxarit wii ñu nekk ci ñi nga xam ne loolu lañ jàpp atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ak ñeent fukk ak ñeent hijriya ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi atam junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di lajil dëppook 19 août 2022 dëppook fukki fan ak juróom-ñeent ci mois d'août bi ñu nekk atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar ci miilaadi isa ci juddug seydina isa alayhi salaam mbokk bokk yàlla ñaar fukki fan ak benn dafa bokk ci lim yu fatt yi kon tey ñi nga xam ne dañoo jàpp ñaar fukki fan ak benn dafa fatt ci ñoom rafetut waaye ñi nga xam ne ñoo jàpp ñaar fukki fan tey ñoom rafet na ci ñoom ndax ñaar fukki fan bokk ci lim yu fatte yi ajjuma ji jot nag liñ ci gën a taamu Euh, bu fekkee ne dajewut ak bis bu fat mooy ku ci daloo duwaawul yawm allahuma inni asaluka jannata wa astajiruka wa astajiru bika min annaar inni asaluka aljannata wa astajiruka min annaar yow yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma àjjana waaye nga musal ma ci safara ini inni asaluka aljannata maa ngi lay ñaan àjjana wa astajiiru maa ngi sàkkoo musul bi ci yow mina naar ci safara eh, maa ngi lay ñaan àjjana di musul ci yow safara yontu salaa wax na ci hadis ne nit ki su ñaanee yàlla yow yàlla tabal ma ajjana yow yàlla tabal ma ajjana ajjana da koy ñaanal na ko yow yàlla yàlla nga ko tabal ajjana waaye nit kii su waxee alluma inni onze bika mina naar alluma inni onze bika mina naar maa ngi lay muslu ci sawara maa ngi lay muslu ci sawara sawara day wax day wax suñu borom na ko yàlla musal ko ci man kon nag ab jullit fu mu toll war nañ ñaan ajjana waaye di muslu ci safara àjjana la fa nekk ci ay xéewal kenn xamul lu mu toll waaye sawara la fa nekk ci ay balaa ki musiba ak jafe-jafe ki mettit kenn xamul nu mu toll yàlla na yàlla boole ñu ci musal bokk ñu bokk yàlla kon bokk ñu bokk yàlla eh, bis baa ngoog ñaan ngaa ngoog yàlla ñu yàlla boole defal tawfiix ak taysiir ak falaa ak najaa wa zalika lillaahi bi aziz mbokk bokk yàlla alxadiisul yawm qaala rasulullahi salallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama yal na yàlla sëmbartal yërmandeem ak xéewalam ak barkeem ak yiiwam doole ko kóolite yal ko yàlla sëmbartal ci kaw yonent waaye sëmbartal ko ci ñooñam waaye sëmbartal ko ci ay saxaabaam ak mboolem jullit ñi bokk ñu bokk yàlla yonente bi yàlla bu tedd boobu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama nee na man xaafa adalaja wa man adalaja balaxal manzila ala inna silata allahi gaaliyatun ala inna silata allahi aljanna rawaawu Tirmisi bokk ñu bokk yàlla hadis bi boo demee fa nga xam ne fala la mu ngi tàmbalee ci man xaafa adalaja wa man adalaja balaxal manzila ala inna silatallahi xaaliya ala inna silatallahi aljanna rawaahu tirmisi al imaamu tirmisi moo ko solo bokk ñu bokk yàlla yonent bi sallallaahu alayhi nee na ku ragal danga daldi jóg soobu daldi di riñaan daal dem te ku riñaan dox soobu daldi dem da àgg ca kër ga nga jëm kër ga nga xamante ne bii mooy kër ak kóolite ga mooy kër ga nga xam ne moo am sécurité waaye ala inna silatallah naka ngeen xam ne marchandise am suñ boroom day xaaliya lu rëy la lu màgg la waaye lu cher la ala inna silatallah aljanna waaye marchandise am suñ borom subhanahu wa taala mooy ajjana bokk ñu bokk yàlla maanaa hadis bi li la yontu bi sallallahu a xamal lépp mooy bëgg laa wax ajjana ni mu ceere ak ajjana ni mu jafee ak ajjana ni mu rëyee ak ni mu màggee kër googu nga xam ne kër gu yéeme la kër ak xéewal la muy daaru naim di kër ak xéewal fiiha ma la aynun raat ولا أذن سمعت ولا قطر في قلب بشر maanaam nekk na fa ci biir àjjana loo xam ne bët musul tege ci moom lu mel noonu waaye nopp musul déglu lu mel noonu waaye kenn mënu ko xalaat ba peeg ko xéewal ga nga xam na ma nga fa ak bànneex ba nga xam ne ma nga fa ak yiw wa nga xam na ma nga fa ak taar ya nga xam ne ma nga ca biir àjjana wala yu nabbi uka misla xabirin yàlla mi nga xam rek moo ko mën a xibaar mbindeef yi allahu akbar moo tax dafa cher ba nga xam ne bakkan lay jar inna la ashtara min almuminina anfusahum bi anna lahumul janna ci alquran suñu borom nee maa ngi jaayante julli ji àjjana waaye ñu ngi koy jënd seen bakkan yi joxe sa bakkan doga am àjjana kon àjjana cher na lool moo tax yontu salaay salaam ne man xaafa allaja adalaja wa man adalaja loolu mooy lan man xaafa adalaja wa man adalaja balaxal manzila loolu mooy lan loolu mooy képp koo xam ne tey ci misaal ragal nga noon bu wàcc ci sa kër wala agresseur bu wàcc wala agresseur boo xam ne war na laa dogale nee na da daal di jóg rek eh, daal di jóg rek daal di laxas dem fa nga xam ne soo fa demee da mucc neen loolu nag mooy lan mooy àjjana képp ku fa dugg rek mucc nga kon bépp moyen buy tax nga dugg fa rek war nga koo def te àjjana cher na cher goo xam ne eh, kenn mënu ko jëfal waaye ci jëf la ci yàllay tàbbale nit allahu akbar ma ne àjjana cher na cher goo xam ne jafe na jafe joo xam ne kenn mënu ko jëfal waaye ci jëf ji la yàllay dëgg ba yërëm la tàbbal la ci àjjana ndax yontu bi salaa salaam toog ne leen kenn ci yéen jëfam mënu ko yóbbu àjjana saaba yi laaj ko na ko yow nag mu ne wala ana mayit sama jëf mënumaa yóbbu àjjana ila an yataqammadani llahu bi rahmati lu dul na yàlla moo ma moo sëmbartal yërmandeem ci sama kaw yërëm ma tàbbal ma ca waaye nag ci jëf ji ngay jëf ci la suñu borom subhanahu wa di jog gi ba yërëm la tàbbal la ci àjjana moo tax nag soo ne yàcc rek wala nga ne àjjana kat kenn mënu koo jëfal ba tax nga lànk bañ a jëf ah su boobaa nag doo bokk ci yërma ñi nga xam ne ñoom la suñ borom subhanahu wa di yërëm waaye ndax yàlla dafa wax ne inna rahmati wasiat kulli shay waaye nag fa sa aktubaha lilladina na ngok sama yërmande moo gën a yaatu lépp waaye nag maa ngi ko bindal maa ngi ko fa tegal ñi nga xam ne dañ maa ragal te attaqwa mooy lan taqwa mooy jëfe ndigal bàyyi tere loolu mooy ragal suñ boroom jëfe ndigal mooy ragal suñ boroom mooy ragal yàlla te yàlla nee na sama yërmaande moo gën a yaatu lépp waaye ñi ma ragal rek laa ko fa dencal kon soo ragalu suñ borom bokkoo ci yërmaande yi suñ borom te suñ borom du dara lu dul mu tabbal la ci àjjanaam ji nga xam ne képp ku ci tab bi dutoo génn képp fa tab bi gis fa xéewal gu rëy goo xam ne bët musu cee tege nopp musul dégg lu mel noonu aljanatu xalqun azim ajjana mbindeef mu màgg la mu màgg a màgg a màgg a màgg màgg màgg la yàlla suñu borom subhanahu wa moo ko bind euh, mu nekk kër goo xam ne ci lay terale ñi nga xam ne bu leen digalee ñu def bu leen teree ñu bay sawara it mbindeef mu rëy rëy la mu màgg a màgg mu mu doy waar mu raglu moo xamante ne bii suñu borom subhanahu wa da ko faa def te dara taxut mu def ko fa loolu képp koo xam ne digal na la nga lànk wala képp koo xam ne sant na la nga bañ kooku rek tax suñu borom subhanahu wa def ko fa aljannatu daaru naimi aada allahu eh, lil muslimin ajjana eh, kër ak la suñu borom ma ngi ko fa préparel ñi nga xam na dañoo jël seen lépp jëbbal ko yàlla nangul suñ borom subhanahu wa waaye nag al naaru daarul iqaab sawara nag moom kër ak mbugal la yàlla nga ko fa xaroo yàlla nga ko fa préparel képp koo xamante ne bii doob jullit waaye képp koo xam ne yàlla namm ci yow yërmandeem yow la ko suñ borom subhanahu wa taala tegal yal nañu ci yàlla musal musal leen ci yal nañu yàlla may àjjana may leen àjjana moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ala inna silatallahi ghaliya ala inna silatallahi aljanna marchandise am suñ borom mii nee na marchandise mu rëy la mu cher mu màgg waaye nag marchandise mooma mooy man nee na mooy ajjana ajjana nag wax naa leen ko nee naa leen képp koo xamante ne bii yàlla namm na ci yow yiw lim la sant nga nekk ca lim la tere nga bàyyi ko kooku yi de la fa suñ borom subhanahu wa taala di yóbbu waaye képp koo xam ne yàlla namm ci yow yiwam namm ci yow yërmandeem moom day doo mën a fexe fexe ba def lu la fa yóbbu ci luy tax nga nga sore ko rek ci loolu ngay xëy ci loolu ngay gont yàlla nañu yàlla musal ci loolu bokk yu ñu bokk yàlla daxwaahum fiiha alumak daxwaahum fiiha subhanak wa tahiyatum fiiha assalaam allahu akbar àjjana joo xam ne eh, am nuyoo bañ fay nuyoo jàmm rekk lay nekk salaam mooy jàmm moo tax képp koo xam ne amoo jàmm góob mu ne di nga mën a dem àjjana de ku bëgg a dem àjjana dangay am jàmm di joxe jàmm di def jàmm wallahu yaddoo ila daari salaami wa yahdi ma yasa ila sirati mustaqim yàlla nee na man kër ak jàmm laa woote aha kër ak jàmm googi moom laa woote te mooy jubale ci yoon wa nga xam ne moo fa jëm képp ku fa jubale nag nga dox topp ko ba kere kon kondam kondam ba kere nga fay tabbi waaye képp kum fa mooye la it nga topp weneen yoon wa rek di dox kondam kondam ba kër nga fay tabbi moo tax seydina abi bakar siddiq radiallahu taala waxoon na waxam ju rëy ja nee na woon ah aljannat aljannatu baabun maanaam almawtu baabun kullu naasa daaxilahu nee na woon deede bunt la boo xam ne ñëpp ciy tabbi yàllay ta chéri qabla mawti maddaaru ak a neexoon ma xam bala maa dee man Aboubacar fan mooy sama kër Seydina Aliyun feelu ko na ko a daaru daaru naimi in amilta biha aw daarul bi rek ina fan naaru in amilta biha mu ne ko kër ga kat du dara lu dul kër ak ñaari kër doo nga fa am kër ak àjjana wala kër ak sawara soo jëfee luy tax muy àjjana muy àjjana soo jëfee lu tax muy sawara muy sawara rek ndax ñaari kër yooyu rek moo fa am benn muy àjjana wala muy safara su nekkul àjjana rek nekk safara te ku ci nekk nag am nga fa kër mbindeef moo gis rek am na kër àjjana waaye am na kër safara soo fexee ba góor góorgóorlu fay sa kër ak safara ñu ubbi la sa kër ak soo fexee ba góorgóorlu ubbi sa kër ak àjjana ñu fayal la sa kër safara waaye soo sàgganee nag ba mënoo fexe ba ubbi sa kër ak àjjana ah su boobaa sa kër ak safara ubbeeku rek di la xaar wala iyaasu billah yàlla nañu ci yàlla musal bokk ñu bokk yàlla kon mu ngoog hadis baa ngoog euh, bis yaa ñaan ngaa ngoog yal na yàlla may ñu àjjana yal yàlla musal ñu sawara kii seen soppi ci yàlla Abdul Ahad aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairul muminin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi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 abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly kuñ forlome war ngay sant ñun lay tigil kese la doom sidi baram